jàmm yàlla ak liggéey rek. moom dugg si leen loolu la wax. ndax moom jàmm yàlla ak liggéey rek. moom dugg si leen loolu la wax.